Yallahu العزيز رب والجبار لك علي الحمد والكبار يا متكبرا له الرحيم إنك الغفور شكر يا علي يا كبير لك علي الشكر والتكبير حفيظ يا مقيم يا عزيز جليل يا كريم يا رقيب ربي أنت المحسن أنت الذي صنعه لا أوزي مبدئ يا مهيد مهي يا مهيد أنت الذي تهي البرايا وتميد يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا مندوب عبد xam ngeen ne noo ngi wër ci njabootu sëñ Modou Khary di ànd ak yéen ci bis bi nga xam ne moom lañ koy fàttaliku tey ñaar fan ak juróom ci rekki gàmm at mu jot ci fàttaliku ni ngeen ñu ci suba léegi ci kër njabootu sëñ Modou Khary gépp ñoo ngi fii ci kër sëriñ Khadim Mbacke mi nga xam ne moo yore kàddu njabootu sëriñ Modou Khary Mbacke gépp xam ngeen ne ni mu ko ànde woon ak yéen ci woote màggal gi waaye ni mu ko ànde woon ak yéen ci ama woote màggal gi ba ci ni nga xam ne ci lañ egsee ci bis bi Eh, bi nu ñëwee nag fekk nañ fi njabootu sëriñ Touba gi fenn fu nekk kilifa bàyyi ko fa fekk ko fii tey waaye nag fekk nañ fi taalibe yi ak soxna yi ñoom ñëpp nu ànd ak sëriñ bi taxawu màggal gi. Eh, niñ ko baaxoo def nag suñu yegsee ci waxtu wi daanu yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Bassirou Mbacké mu yëkkati ay kàddu yoo xam ne dina jëm ci bokk yi waaye dina jëm ci bis bi nga xam ne tey ci la ñuy fàttaliku jëm ju sell ji muy sëñ Modou Khari ñu ànd ak rajo Benno FM bu sëñ Mor Talla ma teewal leen fi waaye ànd ak rajo wal fajiri ànd ak rajo RTS Touba Mbacke FM ànd ak site internet bi ñuy wax euh, Gouy Mbinde TV ak Istiqama waaye ànd ak Touba Misso ak Mouride Info ñu ànd ak ñoom suba ak léegi ngir wéyal liggéey bi te ñoom ñii ngeen dégg ñu tudd ko it ñoom ñoo àndoon ci woote màggal gi ci communiqué yi ak image yi ak lépp lu jëmoon ci bisu sëñ Modou Khary bi ba yegg si fii nag ñu àndaat ko ak ñoom ci léegi kon ñëpp ñu déglu Cheikh Mamadou Bassirou Mbacké wasalaatu amin sayidina wa mawlaana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwaani wa tamkin amma baadu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi sant yàlla bu baax subhaanahu wa taala di julli ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam di sant Sëriñ Tuubaa bu baax di bég ci daje gi ñu dajewaat fii ci bis bu màgg bii nga xam ne baaxoon nañ di ko defal sunu maam ju tedd ji muy Serigne Modou Khary Pofdy ci dëkkam bu tedd bii nga xam ne moom lañuy ñuy wooye Pofdy te muy dëkk bi ñuy wax daarul xitma te ñu xam ko ci Touba Pofdy at mu ne ñu di fi daje ci daaraam ju mag ji nga xam ne ki nekk ci bopp daara ji mooy Serigne Khadim Mbacké Pofdy te sampal ko ko fii te nekkal ko fi ñu daje fii ak sunuy kilifa yoo xam ne nooy suñu kilifa yi nga xam ne noonu yar ca ba ñu doonee lu tuuti luñ xam a kës néew ci ñoom lañ ko xame te buñ ci tuddee kër sëriñ abi bu Mbàkke gi nga xam ne ñun ñëpp fa lañu génne sëriñ Xaadim mii di boroom kër gi génne fa eh, ay waa këram ñëw toog muy sëriñ Mouhamadou Mbàkke ak sëriñ Abdul Majid bu leen ci tuddee dana doy sëkk ñu xam ne bis bi wuyu na ba wuyu na borom ndax bis bi doonut lu may bisub borom daara mu mel ne bu ñu fi dajee daara ci boppam moom la ñuy nafaraat sëriñ Abdou Samad Mbàkke itam ma nga jógee Mbàkke ñëw sëriñ Sidi Mbàkke moom itam ma nga jógee Ndaam ñëw ah, sëriñ Cheikh Mbàkke jóge Mbàkke moom itam ñëw ak sunuy bokk yi nga xam ne ñoom ba tey moom ku leen tudd seen xel dem ci daara te mooy waa Ceyeen te bu ñu tuddee sëriñ Fàllu si dana yóbbaale ñi ci des ñëpp ni loolu liñ ci jublu rek jublu ñoo lim ñu fi teewaa dañoo tu jéem a tudd ñenn ci jataay bi rek ngir xam ne jataay bi jataay bu riis la jataay bu bu fees dell la ak daara kon sëriñ Modou Mokhtar ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen wax déwénati ni ñu ko aadoo woon at mu nañu fi daje aadoo woon nañ bu dajee bu ne yëkkati benn tomb bu ndaw ndax tey jii xam ngeen ne waxtu xat la ak rawatina waxtu wi tomb bi du weesu euh, lii wolof di wax naan waxtaanu pël ak pël mun te weesu nag a baax bu ñu dajee nun comme ay dongay daara lañ ci daara rek lañ mën a waxal bépp kàddu bu ñu yëkkati itam ñeen tollool ci daara lañ cay waxal waaye ñi nga xam ne ñooñu ci jiite nag ñooñu taxul ñuy wax kon lépp lu ñu ci yëkkati nañ ko déggee ne ñin bokkal daara te tolloog ñoom wala ñi nga xam ne xaw nañ ñoo féete suuf donte le am nañ ñooñu la ñuy waxal ñooñu daal maa ngi leen di woo ci woote bii nga xam ne mom la borom kër gi wuy si woon ndax serigne touba radiyallahu taala anhu mi nga xamne mo sos lepp te ñun ñëpp sunuy maam ak sunuy maamat wuy si woon ko ba teraanga ju ji fekk leen di wesu ton samp dara niko sallallahu alayhi Wasallam sampe ndax nit bala defaru faw mu jaar ci dara jaar gi ci dara nak man na nek ci ay anam man na don ko xamne dañuy tek allu ci tankam man na am ko xamne day dem ba ko ñu fexe ba mu xam waaye li am solo daal faw mu jaar ci daara te daara nag meññetum daara mooy xam meññetum xam-xam mooy jëfe kon faaw ñu sàkku xam-xam te jëfe te loolu dikk nañ ci waxtoon loolu boroom kër gii keroog bi muy samp daara jii dajale ci ab liggéeyu boppam ba am astuut am na ay bokkam yoo xam ne yoroon nañ lu ko ëpp fuuf ba muy ñëw di samp daara ñu ne ko yow lii da nga ko war a defu capital liggéeyee ji ko mu ne leen man sama dund li ma ci nisiroon mooy taxawal daara tey la wala xaw ma suba la kon li ma am akas néew damay dem dawal ko ci daara loolu moo ko indi ci dëkk bii nga xam ne moom fekkoon maamam def ko mu doon daara nag naka jekk maamam it di doon koo xam ne muy sëñ Modou Khari moom ñu tudd uh, ak bokk yebu ko woon diine yebu ko woon ndax lam waroon a xam xam na ko lam waroon def def na ko ba juguti sëñ Tuubaa uh, jotee itam dem na wuti ko ba am ko firnde ji mooy barki démb ci ngoon rek andi nañ fi xasiida goo xam ne sëñ Modou Khari moo ko taalif def ko ci maam jaara te sëriñ bi moo ko yabaloon mu yeesali barabu maam jaara boobee waxoon na ko demal sa barabu bàjjan ba nga yeesale ko te moom maam jaara bàjjan la ci moom kon xam ngeen la mu bokk ak bi ci bokk mu ba mu wax sant ko itam nag mu yeesal xasida googu nga xam ne sunu maam ju ju tedd ji dëkkoon kokki defoon na ko ci maam jaara te jamono boobu dafa dëkk dafa dëkk ak moom mu gis maam jaara te boobu yëpp amagut waaye doxin wa mu gisoon muy dox ci la xamoon ne maam jaara mii dana doon ku ñuy damoo bu ëllëgee waaye dana fi indi lu ñuy damoo mu bind ca jamono boobee mbind moo xam ne dafa dëppook jamono jii ñu toll sëriñ bi santoon suñ Modou Khari ne ko nañ ko yeesal mu def ko ak xasiida xasiida incha allahu ci cérémonie bi danañ ko séddale ci bokk yi ñu am ko kon loolu firnde la ci ne suñ Modou Khari borom daara la daara jooju nag moom la ñuy xeeñtu ba léegi mu mel ne nag daa gën a feddaliku bi ñu amee suñu jàmbaari lislaam jii ñu yàlla séddee ñu ñaan yàlla sàmm ko te aar ko te yàggal ko fi lool muy sëñ Mouhamadul Muntaxa gis ngeen sëñ yëpp benn bu ne bu ñëwee day seet la ñu mënta ñàkk mu ñëw dox jëm ci Serigne Touba yi fi mas a ñëw yëpp luñ mas a indi daara lañ ko booleel waaye moom bi mu ñëwee nag dafa mel ne bu fekkoon ne li muy indi day téeméer juróom-ñeent fukk baak juróom-ñeent bépp day daara daara la delloosi daara nag bi mu ko delloosee ñun ñëpp xam nañ ne ñëw na ci waxtoom beneen bi ci des mooy ndaw ñi kon pour ñu mucc ci loolu nag faw ñu jàng xam seen diine xam li matal roy ak li mat ndax diine dañ koo tabax ci tabax bu ci adaalatu naqli yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na diw nee na diw nee na ba agsi ñu ne lii mooy diine waaye xel mu rafet rek munaasabatul xaqli déedéet xel mu rafet bu doon loolu rek kon diine dana dana bari ay ponk yu baree bari yoo xam ne danañ ko ci dolli ndax boo xoolee yi nga xam ne dañ koy def yépp mag muy sëgg mag muy jël raxas ay tànkam mag mu dem di daw di wër ay ay ay doj mag muy def ay nangam ak nangam bu fekkoon ne xel dong la danañ indi ay xel yu baree bari ba mën nañ ko fee jëlee wala ñu yokk wala ñu moderne ko kon diine ci ci toxal ci lañ ko ci lañ ko tabax te lépp loo ci indiwaat loo jëlewaat ci loo xam ne ci xel dong nga ko indi loolu mën naa bañ a bokk ci diine kon diine nañ ko jëlee ci loolu ndaw ñi nangeen xam ne seen sëriñ bi nga xam ne moom la ñuy dàkk te ku ko am dootoo ñàkk mukk li gënoon a rëy ci moom mooy julli julli bu leen ko sàggane julli waxtu wu leen jote ak fu mu leen jote na ngeen ko daal di def te xam ne nii la ko sëñ bi daan defe ñam yaroon nii lañ ko daan defe doomi boppam nii lañ ko daan defe keneen nag mën naa mel ne Basiiru Mbàkke mën naa amu rax mën naa am mu ñàkk rax ndax loolu yàllaa koy def lépp lu bari lu ne sànkar mën na caa tàbbi waaye sëriñ bi moom nii la meloon ñi mu yaroon nii lañ meloon lii la waxaloon boppam lii la bindoon itam lii la waxoon ne jëf naa ko ngeen gis lii la waxoon itam ne def naa ko wax naa ko ngeen dégg lii la waxoon itam ne bind naa ko bàyyi muy benn tomb li ni ci mën a musal nag ñun ndaw ñi ci yooyu ma wax ndax da gis koo xam ne Sëñ Abdou Lahad da daan wax ne di def dara te jàpp ne mu baax na baax na mu wóor la ne baax naa ko gën mu wóor la baax naa ko nag na tege ci sariatul islaam da nga gis rek e, ndaw ñi nga xam ne dañoo mel ne man nga xam ne dañoo bëgg-bëgg guñ amut sago taseeg benn waay bu bari pexe léeg-léeg mu sóob leen ci yoon woo xam ne dañuy fekk la nga xam ne daa war a kawe ñu teg ko ci suuf fab li war a tege ci suuf teg ko ci kawam yooyu day bu baree bari man dem naa ci barab boo xam ne dañoo too dañoo yëkkati kaamilub alxuraan di ko jàng am ay gone yu taxaw ci suñu kanam ne leen ne ne lii waxi naar rek la daal di ne nañ indi xasida daal di indi xasida teg waaye kooku de tooñ na borom xasida borom xasida daje woon ak moom day waxul ma jaay seeg fetal lu mu ne mën na koo daale ci kawam ndax laa wax ne lépp lu mu am ci alxuraan la ko am loolu lépp mooy bëgg gu àndut ak ko xam dajeeg nit koo xam ne dalay soob rek te la di la di la numtee ndax dama leen wax ne Sëriñ Tuubaa ni mu organiser yëf mi képp ku ci rax dara rek tooñ nga ko Sëriñ Tuubaa ku suñ borom subhaanahu wa taala jox lépp la mu am gisub lépp li tàmbalee fii ba fa yëf yi yem mi ngi jàkkaarloog moom li ci gën a rafet la tànn dafa am ñoo dafa am tur yoo xam ne doom dong la ko daan nit rek la ko daan tudde muy tur yoo xam ne nit rek te tur yooyu ba ba àdduna tukki kenn indiwaatu tur yu ko gën a rafet mouhamadul fadil mouhamadul moustapha abdul ahad abdul samad abdul karim abdul majid ak yeneen tur yi ci des yëpp nga xam ne moom moo ko sosoon yooyu nit rek la ko daan tudde am tur yoo xam ne téere la ko daan tudde muy téeréem yu bari yii tasawudu sixaara tasawudu subaan mawaahibu naaf jasbul xuloob muxadimatul amda ak yeneen yeneen yooyu yëpp am mosu koo tudde nit te téere la ko daan tudde am yoo xam ne dëkk rek la koy tuddee muy daaru salaam daaru rahman daarul manaan daarul xafoor ak daaru yi nga xam ne ñoo fi nekk yëpp lu ci nekk daf ko organisé woon nga xam ne tur yii nit a ko jagoo tur yii téere ko jagoo tur yii dëkk ko jagoo waaye ci bëgg gu àndut ak xam dañuy dem ba di ko jaxase nga gis dangay ngay taseeg benn waaye ne ko saa yi noo tudd mu ne man de léegi jësul xuróob laa tudd wala maraaxib laa tudd wala nangam laa tudd moo ne ñi nga xam ne ñoom la sëñ bi daan bind mbi du mu tooy xip mu jox leen ko ñu di ko sotti ba agsi ci nun te mësuñoo mu musuñoo boo da jaawale sëriñ beeg dara di ñoom di musuñu ko tudde seen i doom musuñoo ko tudde seen i taalibe musuñoo tudde lu tur yi nga xam ne moom la sëriñ bi daan tudde mooy fekk mag mu organiser yëfam ba noppi mu mel ne yow da nga ko ca bëgg a dollil dara ndax da lu des la ñëw daal di daal di soppi ay tudde ko say bopp yooyu yëpp dafa bokk ci nga xam ne day faral di rax ci loolu mooy bëgg gu àndatu ko xam wala wala wala wala nga jekki-jekki ba mu yàgg nga ne ah yow ñun amoonub sëriñ sëriñ boo xam ne da lay ngay xale boo xam ne da ngaa ci nàmp yow férégoo ñu war laa teg wu yoon war laa jàngal war laa xamal nga ne ah man de léegi moom maa ngi ci xasida yi si nan daal léegi jaalibatu yi sama sëriñ wala diw nangam wala nangam loolu de sëñ Mbàkke Buso musu koo def mu safari fari woo jaalibatu mu def mu dib sëriñam de sëñ sëñ daam Abdourahmane lu musu koo def maam Cerno musu koo def keneen ak keneen ba ci maam Cheikh Ibra Fall amu ci ku masoon dem jël ko xasida fari woo ko muy sëb sëriñ yooyu yëpp mooy rax yi nga xam ne moo ci am looloo tax nag sëñ Muntaxa bëgg ñu jàng ba ne ar ndax yàlla ñu mën luñ jëf mu dëppoog la mag ñi doon jëf ndax liñ ñu jàngal dañu ko xamal boo demee ci si sëñ bu mbakkee mi nga xam ne de nit ñi ñëpp ñu ngi ca ñu ci moom te mu doonoon koo xam ne muridu saadix la boo xam ne saadix xam nga jéggi woon na dayo ci bëgg sëñ Tuubaa ak suufeel boppam ak taqoo ga ak tawfeex ga ko ci yàlla may yii ñuy wax yëpp kenn mosu koo fekk këram ñu di ko fa def nit kuñ tuddee xasida wala nit kuñ tuddee ci turi dëkk yii wala nit koo xam ne day jëlu xasida farewoo woo ko muy muy muy muy muy ab sëriñam déedéet jàngal alquran te xool li ci sariya sant nga jëfe ko dee ko waxaf xool waxaf yi niñ koy defee moo xam moo xam ni ni waxaf yi ba nga xam ci sëriñ bi lañ ko jëlee moo xam ñaari juróomi isib la moo xam loo man wala li nga xam ne moo la jàpp jàppandi ci alquran dee ko jàng soo ko jàngee ba noppi li nga mën ci xasida nga di ko def du aw sas nga di ko jàng te lépp nga di ko sellal te jublu ci liggéeyal sëriñ Tuubaa waaye nag loo mën di def nag boo waxtu julli jotee demal julli ji bu koor jotee fas yéene yéene boo amul ngant demal woor yi soo mënee aj màkk demal nga dem aji aji màkk ponk yëpp juróomi ponk yëpp bu ci bàyyi benn te lépp boo ko defee nag mooy loolu suñu Muntaxaa di wax ne nañ fonk lislaam sagale ko Sëriñ ndax ponk bu ci nekk jaay na ci bakkanam loolu moom lay li ma bàyyee ndaw ñi di ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala ñu tasewaat fi ay déwéni déwén di euh, damaa dégg ci biir sëñ dul Muxtaar di lim nag mu lim ci wal fajri wal fajri danaa ci taxawlu di jaale Sidi Lamine Niass mi nga xam ne moom moo ko sosoon Sidi Lamine dafa taxaw ñaari taxawaay bi njëkk bi mooy dafa weddi aw aw duur woo xam ne dañu ko duural ndax jànkati tubaab yëpp dañoo duural ne daara day tàddeel nit te Sidi Lamine suñ mbokkum daara la moo xam ne ginnaaw bu mu doonee doomi soxna ci daara la jaar jàng li mu jàng ci daara lépp te ci ay jafe-jafe la ko jànge de ndax ku teel ñàkk jur la ku nguur teel tàmbalee xeex la ci ba mu doonee ndaw nguur yi fi jiitu woon ci jamonoy Senghor ak ñooñu ñëpp demoon nañ sax ba seenum njàng ñu tegoon leen ay daan yoo xam ne ngir ñu jàng rek lu jafe-jafe la ci ñoom muy doomu daara joo xam ne mu mu daal doyloo rek la ko na ko daara yare daara moom ni mu la yare mooy yàlla ci suñu borom ngay teg ci sa kanam rek doyloo ko ci lépp ba yàlla dogal mu jàng lam jàng bi mu dikkee ci li nga xam ne moom la moom la tubaab yi baaxoo woon jànkatu tubaab baaxoo woon muy lu mel ne presse ak nangam ak nangam mu def ci loo xam ne ba tey dabuñu ko ci tey jii képp ku ñuy damoo ñu di ko déglu di ko naw ne ñu formé ko ci presse yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ñu ci ëpp ci Sidi lañ jaare mu tàggat leen te bu demee kat dañ naan ndax lam doo keneen dootu fa des waaye bu tàggatee keneen kooku la ñuy gën a naw kon Sidi ñoo ngi koy ñaanal yàlla suñu borom xaaroo ko aljanna wane na ne jaar ci daara taxut a des ginnaaw ci wàllu àdduna kon bu ñu fekkee maanaam ñu bokk ci moom dañ fee ñëw jubluwuma rek maanaam li li ma jublu mooy mooy ñi ma Modou Mokhtar limal ñëpp ñu fi jaar ci wàllu presse ñoo ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ci turu Serigne Khadim waaye Sidi dañ ciy taxawlu ndax xew-xew bi wàcc ci moom ak nag moom li mu def mooy li ñuy wax révolution la def nekk doomu daara joo xam ne daa dugg ci wàllu àdduna ba jommal ca waa àdduna ba noppi dese daaraam ba ni mu génnee àdduna yàlla na ko yàlla euh, xaroo aljana beneen bi ci des itam mooy ku ne xam ne ne bis bi biñ koy woote dañu wax ne danañ ci rendre hommage Sidi Lamine ak sëñ Sidi Muxtaar sëñ Sidi Muxtaar itam noo ngi ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram ca jàmbaar la joo xam ne li mu war a def lépp def na ko jëmm la joo xam ne ku mënoon muñ la jëmm la joo xam ne ku bëggoon Sëriñ la jëmm la joo xam ne ku bëggoon lislaam la jëmm joo xam ne ku xéroon la keroog biñ ne ko yaa léegi liggéeyub Sëriñ Tuubaa ba lim fi jógee jëndu fi oto tabaxu fi kër def fi dara kër gi mu fekkoon mu doon ko defar sax da ko jël joxe ko muy addiyee Sëriñ Tuubaa doon koo xam ne itam ku noppi la ku jàpp aw làmmiñam kooku jëmm la joo xam ne ju mat a mm, ko la ju mat a ñaanal la yàlla yokk ay leeram ci barsax yàlla taas ñu ci barkeem yéene yooyu mu amoon ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ak boole jullit yu nekk benn loolee yàlla fi des di te te yoon woowu mu mu xaloon yàlla bu mu nax saay waaye wàcc na loolu la maamam ji nekkoon moom la daan digle ak i juróom moom itam jaar na ci ba wàcc waaye loolu yi lépp nag yàlla doon ab téeñ ak laxasaay ak kaaraangi ci si moom Muhammadul Muntaxa mi yàlla yàggal ko fi yàggal ko ci sunu kanam yàggal ko liggéeyam bii yépp mu sémb mu àggale ko àggale yi mu fi te ñu moom te meññet ma ñu jot ca wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa xayru yaa xayru yaa waajidu yaa maajidu yaa manduuba abdin yaa waayidu yaa samadu yaa xaadiru yaa man kawnu وبالمؤخرين أول يا آخر أنت الزاهر الباطل الذي له المزاهر وإنك الوالي الذي توالي والمتعالي المسلم الأهوالي يا ki ginaaw bi ñu leen wat baax ci dekk bu sel bi di darul khitma di dekk sëñ Modou kharim mbake fof di ginaaw bi ñu bayiko ko ci ke sëriñ Modou mbake mom sëriñ Amidou mbake mi toge ab euh xam ngeen ni non lañ ko defé ci ke sëriñ mustapha mbake ba ci ke sëriñ Ahmadou mbake mi khalifa bi no ngi fi ci ke sëriñ Cheikh mbake bi ñu ñëwee nak fekk nañ fi njabootu sëriñ Touba khadim rasoul jëm ju tedd ji ngeen di jan lool muy Sidi mbake di doomi Serigne Modou Awa Balla Mbacké mom Cheikh Ibrahim borom darul Mouhty ñukoy ziar bax di ñaanal yalla mu guddal aw faram te wëral ko te yeggale yeenem ak nalam ci liggeel way juro ngo Cheikh Modou Awa Balla di nuyu serigne Cheikh Mbacké Galongal mum dendal bok ci njabootu serigne Mbacké kadior mom it di borom taxaway bu am solo ak kilifa yi nga xamne ñew nañ fi legi ku mel Serigne Cheikh Mbacké mi tok jotaay Serigne Mahamadan Jobbe and ak rakam Serigne Fallou Mbacké ak Serigne Abdoulahat ak Serigne Bara ak njabootu sëriñ Mahamadan Jobbe gépp sëriñ Cheikh Mbacke mi fi bàyyi ko léegi di xalif sëriñ Mbacke moom sëriñ Mahamadan Jobbe ak kilifa yi nga xam ne jot nañu fee ñëw ñoom ñëpp ngir dundal ak fedli ak dox ak mbokk ak fet fàttaliku mag ñi dox yin wa nga xam ne doon nañu ko dox muy nemm konte ci ak bokk moo fi indi sëñ Sidi Mbacke doomi sëñ bokk fi toog yëpp eh, ñu yëkkati kaddu gi ne jox ko Mbay Longoor ndax xam ngeen ne at ma jot ñu ñëw fii jël ay kaddu fekk fi taalibe yi ak njaboot gi ak ñi nga xam ne ñoo sëriñ bi ñoo ànd liggéey bi bu defee ñun ñëpp ñu déglu sëriñ Jili Mbay Longor mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di di jotli ay kàddu yoo xam ne mu ngi bàyyi ci sëriñ Cheikh Mbacke kàddu yi bàyyi ci sëriñ Cheikh Mouhamadou Cheikh Mouhamadou Lamine moom sëñ Mouhamadou Xari Mbacke foofu muy kàddu yi cant ak kàddu yi ngërëm yoo xam ne békk na ci jataay bii ndax bi ñu xëyee ba léegi bokk yi kenn desul njabootu sëriñ Touba gi kenn desul ñi ngi fii baagante loolu nag su amee kon jikkoom moo ko ko may ndax moom bokk na ci ñi nga xam ne bis bii ci moom la sabab ci ñoom la sababoo bokk na ci ñi nga xam ne ñu ay taxawaay yu rafet lañ ciy taxaw kon sëñ Cheikh nee na mi ngi sant bokk yi fi nekk yëpp di leen gërëm bis bi nag mooy bisu Cheikh Mouhamadou Khare bi nga xam ne rakke sëriñ Touba la woon di rakke sëriñ Touba woon dib taalibeem boo xam ne dafa jaayoon bokk ga jënd ko ak taalibe sëriñ Touba yar ko way juróom jànkal ko alxuraan jëbbal ko sëriñ Touba mu mottalee xam-xamam ci borom Daaru Muxti bi sëriñ Touba ñëwee ñibbisee ci tukki biit it bi muy dem gànnaar mu yóbbaale ko fa la ko wàccee yabal ko fi nga xam ne Kajoor ci sëriñ Daaru Asan mu dëkk fa diir lu toll ci weer fukki fan jóge fa sanc dëkk bi nga xam ne moom la njëkk a sanc caay sanc mooy corang bii fi jógee dem na dëkk bu ñuy xabaan dem na dëkk bu ñuy wax dem na dëkk bu ñuy wax xaayaan ci Saloum da daarul ma gii la ko sëriñ bi mu jëdaal nga xam ne ci loo ko sant ci diggante 1913 1914 te fi la nekk ba wuy joo fi boromam ci 1936 ak njabootam nag nekk fi dëkk ko li fi nekk tey nag ay sëtam la sëñ Ahmadou mi nga xam ne mooy magi sëriñ Cheikh mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Baara mooy sët bi njëkk a wutu sëñ Modou Khari taxaw taxawaay yu rafet ay rakkam taxawu ko moom it. bañ a amal bis bii kon képp koo xam ne ñëw nga ci bis bii la sëriñ tubaa daaloon sëñ Modou Khary yàlla na la ca sunu borom dafal tawfeex yàlla bu la ca dara umpu sëñ Modou Khary bi ko sëriñ Touba yabaloon Poroxaan mu dem ca barab ba saytu defar ko ba def ca xasida googu mu tudd bari Ridwaan sëriñ bi wax ne ko ne ko mel na ku aj nga umra nga ku aj gu nangu kon loolu yàlla ñu sëriñ Touba dugal ci biir dafa saay roog bàtti na bokk yi ñu wuyu si nag ci jataay bi ñaar ñu bokk yi ne ci seen ginnaaw muy sëriñ Balla ak Serigne Mbacke Serigne Cheikh Mbacke Gelawangal ñoom it euh, seen i wéyjuree aw taxawaay ndax doy na sëkk na sëñ Mbacke Kajoor mooy nijaay sëñ Modou Khary Lenke ndax sëñ Mbacke Kajoor mooy caatu maam Balla soxna Faati Balla muy wéyjur sëñ Modou Khary mooy caatu maam Balla kon loolu ak bokk la euh, sëriñ Sidi mi doomi sëñ Modou Awa Balla di sëtu borom Daaru Moxti borom Daaru Moxti wax nañ ne kal moom sëñ Modou Khary rek la ko daan def ba wóotoon na waruwaay wu ne ci biir kër boo xam ne Modou Khary rek la ko tuddee yëkëti won nako bis mu dem fa mu yëkëti soxna jox ko yëkëti aw naaru gor jox ko nako sa sakere njam ñu sekkon lu bari bari ci ay relation ak joxaso kon bu bis bi ñëwé nak muy bisu ko ak bokk waras nañ fatali ko la xewon dembu pour pour ñu tënd ci kon pour mën ko dundu muy kon def ngeen lu rafet li suñu borom ci ak bokk nak nga xamne mom rek la lekkale ak akhi na ngeen ma ragal man yalla ta ragal ma ci ak bokk taqullaha allazi tasaluna bihi wal arham lutax inna laka kana alaykum raqiba ñëk suñu borom bind asaman ak suuf ak bokk la ñëk bindal xaaral ko aw tur ci ay turam ko ko jokk dinaa jokk ko dagg dinaa la dagg kon yi ngeen jéego yi ngeen def ba agsi fi yàlla yi nekk jéego yu njëggal te ñu jégalu ko ci ci atub sëriñ ngeen ko defee te lu baax lu ne nag baaxee na fu ne waaye ci atub sëriñ Tuubaa la ci la gën a woomee kon ñu ngi leen sant ci turu mi nga xam ne sunu ñi di jaayale du sëñ wéyjur moom it di ku yaatal ku jaxasoog bokk yëpp ndax ku ne ma na laa jur ci àddina waaye nag sa jikkoo mooy jaxasoog nit ñi sunu borom tànnal la ko ñaari wéyjur yu baax Euh, way juróom Cheikh Mamadou Amine sëriñ be joxew turam Cheikh Modou Moustapha yar ko muy ko ko jege ci bokk ci wàll yëpp waaye mu jaay lépp jënd ak ak taalibe moom mii di koo xam ne nii ñi gën a jege sëñ Ahmadou Makhtar la ci lépp bokk nañu bokk bokk bokk cosaan bokk deret waaye nag mu am cër bu mu ko jaxaat ci boppam ba kilifa yëpp benn kilifa kuy dugg pof di te doo accès ci sëriñ Cheikh loolu nag dëgg la ay waajuram baax na waaye jikkoom a ko may jikko nak moy li nga xamne ku mës a ñëw ci kaw suuf loolu rek la fi andi serigne touba limi bax bax bax joko. fekk na fi bax wa jikko la gën la ñep ñu jaay suñu lepp jox ko kon serigne Cheikh neena mi ngi sant ñep di gërëm salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf kàddu ko ci serigne jiri Mbay Longor ñu sant bax soxna yi ñom it ci taxawa bi soxna Ami Cheikh Badiane mi ak soxna yi mbokal nek ci wañu Eh, di taxaw gan ñi xam ngeen ne magal gi degg ngeen gën kaddu gu am solo gu mu yëkëti won ci avant première bi doon wo bokk yi bokk yi wuy sinañu nañu woote bi eh, ñi ngi koy sant baax di ko gërëm di sant soxna yi nga xam ne and naa ak ñoom liggéey bi yëpp kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah antal hamidu rabbi antal muhsin antal lazi sanaahu laa uzi mubdi يا يا سمد يا يا من كونه رب البرايا دنيا بالمقتدر وبالمقدم وبالمؤخر أول يا آخر أنت الزاد ñi ngi fi ci pëf di ci pàkk bu nu barkel bi ñi ngi fi ci kër serigne Afiya Mbàkke khalifa serigne Ibrahima Mbàkke njurul mu feggoog ay rakam yeb serigne Jili Gaawaan a ngi nii toog waaye sëñ Modou roqa ya ngi ni tok ak bokk yi ak taalibe yi kon dal yakar na ni duñ ci sori dañu jël cadeau gi ki wax ci cadeau di serigne Jili Mbàkke Gaawaan ñun ñepp ñu bokk deglu subhanallahi mina sheytaani gannaaw bu nu sant yàlla jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba. Euh, di leen siyaare mbooleem taalibi yëpp ak bokk yëpp di wax ci turu Serigne Saliou Mbacke mii nga xam ne moo fi toogal Serigne Afe Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ibrahima Mbacke njurul euh, di kaddu yoo xam ne si nii ñu ngi ko yëkkati muy kaddu cant di bis boo xam ne si nii itam bis bu tedd la di ñaan ci yàlla ak yonent bi ak Sayxul Xadim lépp loo xam ne si nii jëf nañ ko ci wala képp koo xam ne si ñaq nga ko ci wala képp koo xam ne si dagg nga sa yitte ñëw fii ñu ngi ñaan ci kiñ koy defal muy barke Cheikh Mouhamadou Karim Mbacké lépp loo tàmbaleeti ak lépp loo fi indi ci jàngoro ak lépp loo fi indi ci jafe-jafe yàlla na ko yàlla faj ci barke Sëñ kër gii ngeen ñëw nag daa bokk ci bunt yi kër sëriñ Mouhamadou Karim Mbacké Pofdy yi sëriñ Saliou Mbacké nekk fi toogal fi sëriñ Afe Mbacké feggoog magam ndax daanaka ñun sax amu fu amuñu woon kàddu ndax sëriñ Cheikh Samb mii nga xamee ne bu fi toogee kër Cheikh Ibrahima mbakk njurul daanaka lépp mooy bopp bi mooy genn bi mooy lépp ndax Serigne Abdou Samb mii nga xamee ne mooy waajuram moom moog Cheikh Ibrahima mbakk njurul ñoo bokk benn waajur bu jigéen muy soxna Faati Anta kon bu xasee ba toog fii daanaka ñun ñëpp moo nu bokk yilif kon nag lépp lu ñuy wax itam même suñu affaire bu toogoon fii itam lépp lu muy wax itam ci kàddu suñu seex mii la koy wax. kon nag na ngeen xam ne bis bi moom bis bu barkeel la bis la boo xam ne si ne tele seex Mouhamadou Xadim Mbàkke liggéeyoonu seexul xaddim ba seexul xaddim gërëm ko kon nag bis la boo xam ne si ne itam lépp lu ci waaye fas rek da ko am waaye nag sëriñ bi nee na mi ngi sant mboolem taalibi yëpp di sant mboolem bokk yëpp. di sant mboolem dëkkandoo yëpp itam di sant itam mboolem am di jàmm yëpp ci ñi nekk ci tund wi yëpp ndax itam woote bi bi mu ko wootee itam woote na ko waaye itam wuy si nañ ko waaye nag bis la boo xam ne si ni itam li tax mu di ko woote itam bëgg ñëpp jariñu bëgg ñëpp jariñu doo nga tax mu woo ci ñëpp ndax pàkk la boo xam ne si itam bokk na ci pàkk yi nga xam ne seexul xadiim moo joxoon seex Muhammadu Xarim Mbàkke mu sanc ko kon nag mel na ni ci penc Touba bokk ndax ci penc Touba bokk ndax ci moomeelu Touba la bokk. kon nag nañu xam ne bis bii lépp loo xam ne si nii waaye def na ko fi wala nga ñàq ko fi wala nga jëf ko fi yàlla nga ci daje ngërëmul sëriñ Touba. ndax mu Cheikh Mouhamadou Karim Mbacké Pofdidé nekkoon na koo xam ne si nii ci wàllu bokk ku jege woon Serigne Touba la. waaye bokkam googee nga xam ne bokkoon na kook sëriñ tubaa itam loole mosu caa dox lenn itam lépp lam daan dox itam maanaam ci teel bi rek la ko dox. ba ni ko sunu borom tabaaraka wa taala jëlee. kon nag ñu xam ne fii moom li fi nekk lenn rek la képp ku fa bëgg jariñu dara ci sa kër sëriñ ak taalibi rek na ko mën a may te kii ñu wooteel bis bi itam léppam ci taalibi la ko tegoon kon nag taalibi googee nga xam ne tegoon na ko ci itam ci mbiram itam tegoon lépp ci loxo sëriñ Tuubaa itam njabootam gii nga xam ne ñoo ko fi nekk li itam yal na leen yàlla gën a dëgëral ba liñ fiñ bëgg àgg itam yàlla àggal leen fa ci barke sëriñ Tuubaa bi sëriñ Afi nag nee na ci turu sëriñ Saliou mi ngi sant mbokk yëpp mi ngi sant mbokk yëpp di sant taalib yëpp seen taxawaay rafet na seen jëf rafet na ndax fii tey jii moo fi war na taxaw waaye nag amoon na yéene ji ba waajun bay bëgg ñëw waaye xëy na yeneen gàllankoor rek moo am waaye nag nañ leen ko ñaanal saa bu ñëwatee jataay bi mu di ko tooge ndax itam nekk na ci buntu kër Cheikh Ibrahima Mbacke njurul jenn jëwriñ joo xam ne si nii maanaam jàmbaari fakk tëdd la ànd koog rakkam yi ànd koog doomam yi ànd koog ñun de lepp lo xam si luñ fi jëf jëfaluñ ko kenn sëriñ Afe rek lañ koy jëfël ñun nak fi itam dañ fe fasiyene nek itam ak ñun ñi nga xam ñoo mag ci sëdi yi li ñuy wax itam ci kàddu sëdi yépp lañ koy wax fasiyene nek nekk rek fasiyene top ci seen ginaaw dong nak soxlu wuñ dara bëgguñu dara seenu sag rek lañ bëgg. awal ya akhir anta saahiru anta auzu billaahi min seytaan rajim mbokk yi ñoo ngi fii ci Pofdy di Daarul Xitma bis bu am solo bi nga xam ne tey ci la ñuy fàttaliku Serigne Modou Khary Mbacké Pofdy ñu nekk fii nag ci kër Serigne Ahmadou Mbacké mi nga xam ne tey moo toogee jataayu Serigne Modou Khary Mbacké Pofdy suba ak léegi ngeen gis fenn fu nekk bokk yi dafa bàyyikoo ñëw di amal seen char ci sëñ Ahmadou ak njabootu sëñ Modou Khary Mbacké gi nekk ci Pofdy gi yëpp ñoo ngi nekk toog ak Serigne Cheikh Mbacké moom Serigne Bara Doli moom it di kenn ci yoon wi di borom taxaway bu am solo di yëngu ci politique di ci def liggéey bu am solo xamna dañ koy bayyi rek mu daal di nuyo bu nuyo dana ñu gëna leeralaat ay yëngu-yëngoom ak ay taxawayam rawati nak bis bi nga xamne moy bisu sëñ Modou Khary at mu jot muy and ak ñun ci conférence bi ànd ak ñun ci magal gi ak cérémonie officielle beeg yépp tay ji nag mu koy ci and ak délégation bu takku di ay siyaar ci njaboot sëñ Modou Khary ñu déglu ko di nuyu ñëpp tay ji nag ñew nañu fi def délégation bu mag euh, ngir ñew teew ci màggal gi nga xam ne mooy màggalu sëñ Modou xari fii nag euh, suñu teewaay fii euh, jàpp naa ne euh, ni ñu fi teewee noonu lañ fi waroon a nekkee di dalal gan ñi ndax sëñ Modou Khary sunu maam la li fi ñu nekk ci dëkk bi doon ci moom moom lañu doon ci moom ndax sëñ Modou waa waajuram wu jigéen muy soxna Fati Balla Soxra Eh, nek wajurum bu jigen mo jur soxna jature ak eh, soxna buri ñu nek eh, ay càmmiñam mu nek seen chamiñ ñu bokk ben nday muy soxna Fati sohra euh soxna jature moy yaay sëñ Abdou jambaké ak soxna fatia Dia Abdou Dia jur sama bay, kon xam nga kon fi suma fi ñëwee rek japp na ne dama ñëw sama kër ndax sama kër maam la ñëw ñëw na fi nak ngir teew fi Euh, indi sama siyaar ci turu groupe parlementaire bi nga xamante ne moom laa jiite muy liberté démocrate euh, ñëw naa fii tamit teewal fi président Abdoulaye Wade teewal fii tam suñu candidat Karim Wade teewal fii aussi suñu coordonnateur Omar Sarr moom mi nga xam ne moom la président Wade dénk parti bi euh, kon tànk yooyu bokk na ci ñaari tànk yi nga xam ne moom laa fi ñëwee bi ci gën a am solo nag nga xamante ne mooy bi ma njëkk a wax ndax Serigne Modou Khari day jëmm joo xam ne dafa liggéeyal sëriñ Touba ba sëriñ Touba gërëm ko mu doon nit euh, nijaayu sëriñ Abdou Dia Mbacké sama maam waaye doon doonoon xaritam ñu daan ànd mosuñu tàqali ko daan doxal mbokk gi mbokk gu rafet daan ko doxal doxaliin bu rafet ba am na benn xissa bu siiw bu ñuy faral di wax euh, nga xam ne maa ngi ko jëlee woon ci koo xamante ne mu ngi tudd sëriñ Modou mbàkke Ndokk Don doomu sëñ Modou ndok moo ma ko nettali woon mu ne bis bo xamanteni ne Abdou Dia dafa àndoon ak sëñ Mor Soxna Mbacke mo maam Mor Jaara ñu ñew yendu si won fi ci ak sëñ Modou Xari Pof di neena bin ñewé yendu fi bay ñibi bi ñewé ba toll ci all bi ñu dégg ben tilu bu sap banen sabat mu ne sëñ Modou sëñ Mor Soxna dégg tilu bi lim waxa mu ne ko déedéet mu ne ko tilu bi de daf ñoo tàggee sëñ Masamba Mbacke sëñ Masamba fatuna na xeet sa la amé won Euh, ngir ngan goo xam ne amaloon nañ ko fii ci sëñ Modou sëñ Modou Xëri di ñibbi nee nañ ci la xew-xew boobu amee woon euh, ku ñu wax sëñ moodu Mbacke ndokk moom moo ko nettali woon sa boobu noonu ca déggaat naa ko ci ñu bari pour wane rek ne relation bu rafet la ñu amoon ginnaaw mbokk gi euh, ba tax na ñun suñu teewee fii rek suñu teewaay moom wërta bett kenn ndax at mu jot bañ nekkul dara yi dañ fi daan teew mm-hmm. mosuñoo am mukk mm-hmm. at moo xam ne màggal gi am na mu fekk ñu fii ci Sénégal ci ñëw ñu teew fii yenn fi ba ngoon jot bu ñu masaan na ñëw sax dañ daan yenn conférence bi sax dañ daan ñëw ku ñu xëyaatee ñëw yenn fi ba ngoon jot ndax euh, bu dul dara yi tamit jëlale naa mbokkoo gi waaye dëkk bi ñu fi nekk ñëpp samay xarit rek a fi dëkk bi ku fi nekk rek sama la ndax mooy màggal goo xamante ne danaa fi ñëw ba dem kër yëpp lay dugg xam nga loolu dafay wane ne ñi fi nekk ñëpp rek laa ko seqal ñëpp samay xarit lañ kon am nañu te lool ci teew gi ñu fi teew di ñaan yàlla rek euh, euh, liggéey bi nga xam ne sëñ Modou Khary liggéeyal na ko Serigne ndax ñëpp xam nañ ne bokk na ci ñu gën a liggéeyal Serigne Touba euh, yool boobu ak liggéey boobu yàlla taas ñu ci ci darajay Cheikh Mamadou Khary Mbacké ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yaa xayra man lahu tajaamal yaa maalikal mulki lazi maraami